أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشياطين الرجيم رب أعوذ بك من همازات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ah mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ak mbokki dëkkandoo yi ak wëllëre yi ak mba àddina wërngal këpp dégg maam képp koo xam ne kii dégg nga yaa ngi ñuy gis noo ngi lay siyaare te di la ñaanal jàmm noo ngi dellusiwaat dégg nga suñu émission bi nga xam ne ah moom lañu tuddee jàmm dooy ngeen ànd kook seen mbokk di seen xarit seen mbokk taalibe di Cheikh Ousseynou Sy Narou borom Touba di ñaan yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew meek addina si yépp dégg nga di siyaare bu baax a baax sëñ Mountakha Bassirou mu nga xam ne dégg nga maam moo fi toogal Serigne Touba yal na fi yàlla yàggal te wéral ko di siyaare sëñ Cheikh Jëmb Fall ak mboolem Baye Fall yépp di siyaare yi tamit dégg nga maam sëñ Mansour Mbaye Sy Mansour dégg nga ca Tiwaawoon di siyaare dégg maam Baay Laay Caw waaye maa ngi siyaare tamit dégg maam waa kër euh, Alaaji Muniir Njëgeen dégg nga di siyaare bu baax waa kër Sëñ Saaliw Ture dégg waaye noo ngi siyaare tamit dégg maam waa kër Sëñ Abdou Aziz Cheikh al Islam di ñaanal ko fi toogal yàgg fi loolu te di wax ne noo ngi siyaar maam mboolem ko xam ne kii dégg nga yaa ngi seetaan muy ñasee nag képp ku mën a doon rek dégg nga ak Cheikh Ahmed Tidiane ca Canaba dégg nga noo siyaare dégg nga di siyaare bu baax a baax sëñ Jibril Seck ci Canaba waa si Ahmadou Seexu ñoom ñëpp suñu xarit noo ngi leen di siyaare bu baax a baax di siyaare mboolem koo xam ne ki rek jullit nga dégg maam di wax ne noo ngi ñaan yàlla na nañu yàlla dolli jàmm ah, di tey jii nag ah, yàlla def na noo ngi ànd ak Euh, sunu caméraman dégg nga di madame Jaxate mu baax moom foo ko fekk mu ngi muur rek Seyda la yal na yàlla guddal sa fan dégg nga ànd ko dégg nga papis di sunu doom ak sëñ ay Aïssa waaye di wax ne noo ngi siyaare bu baax géej teraanga di siyaare Ndiaga Dièye di siyaare sa Tine Njoon ak Khalifa Fall bàyyi wunu waa Prestige yépp nag dégg nga waaye sëñ Talla looy tamit noo ngi koy siyaare waye no ngi siar tamit bu baax ah rahmatullah de nga no koy siar bu baax de nga soxna Adama di sun soxna ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn waye no ngi ñaan ci barke Seydina Muhammad alaihi wasallam ya, Prestige Thiès de nga eh, TV gi yalla na fi yalla dool jam ay ah, yeen nga xamne de nga no safo rek ngir yalla yonent bi jëmi Sëñ Tuubaa ñun tam no leen di safo di leen xamal ne de nga dara lo xamne li euh ah, lu am solo deug deug deug maam moy diine islam rek mo am solo rawat na ci ab julit diine islam deug mo am solo yalla defna ah, a ren di am waccay bu magamak, maga mag waccay bi moy lan moy gis ngeen de nga safar gi de nga dekk bi adina si yeb ba amerique ak fo meuna dem ba Chinois yeeg ñep def safar gi ngir lan ngir jëmmi sëñ Tuubaa xam ne sëñ Tuubaa dégg nga dafa liggéeyal islaam te ñëpp la liggéeyal te lam doon liggéey ngir lan ngir dégg nga am jullit yëpp moo tax sëñ bi euh, loolu bu amee nuy sant nun sëriñ Tuubaa waaw ñëpp dañuy sant sëñ Tuubaa bés bu nu demee màggalu tubaa nag dégg nga nu santale ko yàlla foofa nag ndax dafa ne na ngeen ñëw santale ma yàlla kon ñun nak bala ñu dem Touba Serigne Touba la sant ñun dégg nga Cheikhul qadim dégg nga koku lañu sant di ñaan suñu borom ah njabotam gi jitu yalla yalla dolli seen leert taas suñu seen barke. di wax ne kiko fi togal yalla nak fi yalla yagal te wéral ko te katnal ko koku moy kan moy serigne muntaha mum Serigne basirou Mbacke serigne muntaha mum serigne basirou kenn ku ne xam ne. dara ñoru ko dégg maa lu dul sëñ Tuubaa akuk taalibe ak bëgg jullit yi dégg nga am yërmande ci jullit yi dégg nga xam ne bi mu jógee rek ba gimmi ko rek dara ñoru ko lu dul liggéey sëñ Tuubaa képp koo xam ne kii toogal na fi sëñ Tuubaa dégg lu mu am ak lu mu man lépp dégg boole koog di jàng xam ak am xam-xam di ko dimbalee te yàlla tax képp ku fi nekkal sëñ Tuubaa mu ngi ànd ak yow di liggéey dégg nga li ko tàmbalee sëñ Abdou laat ci li xam ñun dégg li ko tàmbali sëñ Abdou Lahad Mbacke ba sëñ Abdou mu baax bi sëñ Abdou Lahad xam ngeen ne kooku jàmbaat ju mag jooju ba mu toogalee sëñ Touba ñëpp xam nañ ne toogal na sëñ Touba xam nañ ne mat na sëñ Touba itam ndax dégg nga lépp lu mu la wax rek dégg nga diine islaam la alxuraan la lay wax xas di sëñ Touba kooku muy sëñ Abdou Lahad gis ngeen dégg ah kenn ku ne soo toogee ak sa liggéey bi ngay war a liggéey dégg nga sëñ bàyyil na la ko kenn ku ne ak sa mission sëñ Abdoulaye Mbacke dégg nga moo yokk jumaa ji xotti ñaar fukki mbedd ak juróom-ñett defar ay nu rahmati daal di defar lan daaree kaamil fay ci huit cent million dégg nga ba mu yokk jumaa ji un milliard huit cent million la laaj. waaye déggal jàmbaat jooju te jamono boobu réew mi metti na de un milliard huit cent millions la laaj ba pare joxe genn wàll gi dégg nga mbokki taalib yi dégg ma am kenn ku ne dégg ma di yëkkati sa al di si def am taalib bu ñëw joxe deux milliards daan ne taalibe la dégg bu kenn tudd turam waaw muy jàmbaar ju mag muy kan muy Serigne Saliou mbakke borom goto mu a jàpp na xel comme jàkk dama ne njaboot Sëñ Tuubaa ñoo gën a bëgg Sëñ Tuubaa sax dégg nga taal bi kenn mënu cee dab dégg nga maanaam njaboot Sëñ Tuubaa yi kenn mënu ci ci Sëñ Tuubaa joxe 2 milliards gis dégg maam jamono boobu bi mu toogee ah dafa woo Sëñ Abdou Khadir mbakke dégg nga ah ànd ak moom ak ñi mu war a àndal ñu dem jumaay. ci biir daaree kaamil dem fi ñu war a dem yépp dégg maam ah, ba pare mu yëkkat caabi daal di koy jox dégg nga sëñ Abdou daa ne ko waa Mbàkke lii nag ah mu ne ko téyeel rek daan ne ko fii moom mooy sama sama dëkkuwaay fii mooy daaray kaamil dégg nga te daaray kaamil kat dama wax ne buntu àjjana yi benn bi fa la nekk ci daaree kaamil sëñ ki nga xam ne mooy sëñ Abdou Khadir Mbacké ba mu toogee ci jal bi sëñ Muntaxa mu ngi ànd ak moom ci liggéey sëñ Tubaa sëriñ Saliou Mbacké mu ngi ànd ak moom ci liggéey sëñ Tubaa dégg nga moom sëñ Abdou Khadir lan la waxoon def ne man kat ilimaan rek laa jàpp moom lañ ma indee fii ñu ne ko waaye nekk na ilimaan nekk xalifa dégg nga sëñ Abdou Khadir Mbacké moomu nga xam ne waxuma la dara billaahi wallaahi wa taalaahi ku mu jiitee julli àjjana mooy sa maa ko fekkee dégg nga maam am soxna soo xam ne si dañ koo jëlee Kaolack am beneen néew bu fa nekk kii ñu jëlee Kaolack keroog bi ñu ko indee ah daal di koy teg ñu ne gannaaw Sëñ Abdou Khadre mooy jullee néew bi su dikkee mu jullee waale néew boobu keroog maa nga fa maa fekkee wax nañ ne keroog bi loolu amee dégg nga bi ñu tëralee néew bi Sëñ Abdou Khadre bi mu ne jaas daal di agsi dégg nga dugg ci biir. ñaari néew yëpp dee nga kenn ku ne lu ñu leen wuuree ñoo nuroo sëñ Abdou Khadre def na jël leen kii teg fee muy ndaw sa jóge woon la daal di jullee kenn ki ba pare daal di wëlbateeku daal di génn dem wuti këram ki ko indi xale bu góor bi daal di dem wuti kër sëñ sëñ sëñ Abdou Khadre sëñ Abdou Khadre àgg si bunt bi rek wàcc rek xale bu góor bi wàcc rek su jootoo ko daal di ne ko Mbàkke maa ngi lay siyaar waaw. mu ne ko Mbàkke man de ah, néew boobu de man maa ko indi woon bëggoon nga julleel ma ko dégg nga. Ah, moo taxoon dégg mu indi ko mu ne ko ah yow de am nga fulla lool kooku de damaa xool ne muy jigéen joo ne daa nekkoon ci boppam ba faatu moo tax ma ne woon ko teg leen ko nele waaye yow am nga fulla soo demee na ngeen ko yóbbu daaru salaam malaaka bii laaj biir biir bàmmeel xamul daaru salaam waaye xoolal kooku keroog jiite na ma tàkkusaan ba pare dégg nga ah daal di bi ñu noppee dégg muy joxe guro mu xar ab guro dégg maam jox ma benn ngàdd gi kooku sëñ Abdou Khader Mbacke dégg yàlla na yàlla doon leeram ah nga xam ne njabootu sëñ Touba gi kenn ku si nekk dégg maam ah bi ku fi toog nekkal sëñ Touba kenn ku ne da lay liggéeyal yow lay liggéeyal di la jox ngir lan ngir jëmmi sëñ Touba ah sëñ Abdou Khader bi yàlla defee dégg maam mu jóge fi kat moo fi toog Serigne Saliou Mbacke. borom got ak mbuur a jàpp ndax xel kom jàkk boroom jom ji ak jàmm ji jamono ji ki nga xam ne moom moo wax jox leen ma ndaw ma def ci ñoom dénga nga la sëñ Bàmba daan def ca mag ña te tey jii boo xoolee dégg nga xale yi li nekk ci ñoom dégg nga ma ne wëral rek ma la Sénégal waaye boo génnee dégg ma am Europe foo mën a dem ma ne taalibe yi koo ci gis dégg nga boole nañu xam-xam boole koog yar ak teggin bëgg Serigne tubaa di liggéey Serigne tubaa ba tey jii dégg maam tubaab yi ak chinois yeeg ñëpp dégg maam di tab bi dégg maam ci yoonu Serigne Touba ñu ànd liggéey Serigne Touba ma soo demee Europe tubaab yi dañ naan ñi yore téere yi dégg ak maxtuuma yooyu ñoo gën a jub ah kon loolu am na solo ab taal bi foo mën a ne dégg war ngaa am jub war ngaa am yar war nga am teggin war nga am xam-xam ndax xam-xam dégg maam la ki fi toog moom rek la bëgg dégg nga maanaam te loolu yàlla na ci defal jàmm dégg nga Serigne Saliou toog fi li mu fi toog ak yërmandeem ak ndimbalam ba wax ne dégg nga maam ah lu dul diine aw ma ci defar aw ma ci yàq man la kooku mat na dégg nga maam Serigne parce que borom Touba am yërmande si ñëpp nag këru diine yëpp nag. kenn ku ne dégg mu respecté la jox la sa cër lu mu warloo ak yow dégg dina ko def ngir lan ngir yàlla ak jëmmi sëñ te mas sa tooñ dégg kooku ah bi mu toogee ci jàll bi daf ne hum tumuranke de moom yàggut fii laa doon toog fii ci kanam dégg ci taatu garab gi dégg maag diw ah nit ñi di ma romb càmmoñ ak ndeyjoor waaye tey jii dégg maa maa toog nekk xalifa xoolal loolu xoolal yërmandeem gi ak baaxam ak bëgg doomu aadama ngir way juram dégg nga liggéeyam mooy xettili doomu aadama yi pour ñu dem ajana mooy safar kii ci la amee lépp na koo ab daal koo xam ne kii dégg maam ci biir ah liggéey bi ah képp ku mu ku mu àndal ku ne liggéey sëñ Tuubaa rek soo ko fekk dégg mu ngi ci tool yi foo ko fekk mu ngi toppatoo daara yi mu ngi toppatoo alxuraan ji dégg nga ah Serigne kon damaa wax ne ku mel noonu kenn ku ne dégg maam ah war koo bëgg kooku bi mu toogee si jàll bi am muy toog ci jal bi lu mu liggéey sëñ Tuubaa la koy liggéeyal liggéey te yéen dégg ngeen ko dama leen wax ne sëñ daam njegéen moo demoon dégg maam Serigne Saliou Mbacke dégg daa di wax ne Mbacke man day damaa ragal dégg maam dee dem safara sëñ bi ne ko mu man day rus naa dégg nga jamono te kenn muy faat dem safara kookoy Serigne Saliou sëñ daam njegéen net moo ko nettali te muy dëgg sëñ Maodo Touré. fekk na dégg maam Serigne moom sëñ sëñ Hadi Touré dégg nga borom faas ba mu demee dégg maam ah xel koom yóbbul sëñ bi ay téere fekk fa sëñ Saaliwu dégg mu sol grand boubou sol woon sax survêtement mu toog ci basang gi yaram wi di laal basang gi dama ne Maodo Touré bi mu ñibbisee ci këram pour wan la ne dégg maam nitu yàlla yi dégg nga dañuy bëgg nitu yàlla dégg nga bi mu dikkee ci këram mboolee mat ya mat la ya fa nekkoon la génn ci biti daane ku day di dégg maa Serigne Saliou Mbacké dégg nga tëdd ci basang ah yaramam di laal basang gi sama kër kenn du fi tëdd ci mat la ba dañoo mujj dégg maam di dem ci sëñ ah Mansour si ngir loolu xoolal kooku nitu yàlla ah yàlla na yàlla dool leeram dégg nga ñu wax ne ñuy dem Serigne Saliou bi mu toogee kenn ku ne gis na ko dégg nga liggéey bi mu fi liggéey ah kan moo ko topp dégg nga maam Serigne Baara Mbacke Serigne Baara Mbacke ñaari at ak juróom benn weer la fi def waaye xool leen liggéey bi mu liggéey dégg nga ah Serigne Baara li mu liggéey dégg maam ci tuubaa dégg nga ak li mu taxaw tëli yi defar na àggale yooyu yépp dégg nga def na kenn ku ne da yor sa mission te pourtant nag man na ñaari at ak juróom benn weer lekk la fi def yàlla na yàlla dool leeram dégg nga ah te loolu ah bi ñu koy wax yàgg na dégg waaw nga xam ne yàlla defal na dégg maam ah Serigne Baara dégg toog fi nuy dem ba yàlla def dégg nga tey jii kii nga xam ne kii dégg maam moo fi toog ndax émission bi mooy bëgg a jeex dégg nga ki nga xam ne moo fi toog. muy sëñ Muntaxa Mbàkke mu sëñ Basiiru lan moo ko ñor sëriñ Tuubaa moo ko mas a ñor dégg nga alxuraan moo ko mos a ñor xas di Sëñ moo ko mos a ñor foo ko fekk dégg maam mu ngi belli kanamam boyal ko bëgg Sëñ Tuubaa yemalewu ko dara dégg maam bëgg taalibe yi di leen li bëgg xam-xam di ñaax nit ñi ci xam-xam ba université bii nga xam ne dégg mu koy taxawal sunu noppee ci gàmmu gi dégg nga ah, maa ngi wax ne mboolem kuy taalibe ak foo mën a nekk boo dul taalibe sax te ab jullit dégg nga mais daara fu ñuy jàngale alxuraan di fa jàngale xam-xam ma ne ku ku ci def yàlla moo lay fay ñu xam nañ ne léegi maam suñu waxee loolu dañoo bëgg dimbali doomu aadama yi waaye sëriñ bi moom lu fi teg di ko defar dégg mën na koo defar ba mu mat waaye da ci bëgg dimbali nit ñi dégg maam kenn ku ne nga dimbali ko dégg maam def ci sa wàll dégg nga ñu deen xamal ne nag dégg nga kii nga xam ne moom mooy màggal gi ñu jëm ah, yàlla na nu yàlla may nu màggal ko jàmm ak salaam incha allah bisimilahi taala ñun waa prestige Thiès dégg nga dinañ ñëw Touba dégg nga nañ fa def palaato yi ànd koog yéen lépp loo xam ne lii dégg maam dana xew ci màggal gi incha allah yéen waa àddina si yëpp dégg nga fu waay mën a toll dinañ fexe dégg maam ba ngeen koy gis dégg maam ah mu leer nàññ dégg nga ñu di ko nettali dinañ ànd ak jàngkat yi ñu jàng dinañ ànd ak borom xam-xam yi ñu dégg nga danañ leen wan jumaa ji danañ leen wan kër sëriñ si dégg nga maam kenn ku ci nekk dégg nga fa nekk ak dégg nga maam liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ak taalibe yi dégg nga nuy ñaan ci barke borom tubaa yàlla na nu yàlla may dégg nga fekke ak tal képp koo xam ne ki yàlla yaa mu yàlla mu ngi def dégg maam ngay dem di màggali yàlla na la yàlla yombal dégg maam màggal gi dégg maam ci barke Cheikh Khadim ñuy ñaanal sunu directeur Pape Doumbia yàlla na ko fi yàlla yàggal wérel ko yàlla na yàlla yokk wërsëgam ak kàttanam ndax liggéey bi mu fas yéene liggéey dégg maam ñoo ngi ñaan yàlla na ko àggaleeg ni mu yoon ci barke Cheikh Khadim dégg nga ak ñu mu ko àndal waa prestige yëpp ak képp koo yéene dégg nga di leen wax ne dégg nga lii nga xam ne dégg maam moom la fiy def ah buy émission bii nga xam ne tey jii moom laay def ki ko sponsorisé kooku moom mooy kan mooy au prestige moo nekk fii nag dégg maam ah. fii ci Prestige Thiès ku soxla ndox mi dégg nga soo ñëwee dana la jaay dana la may ndax ndox mi neex na ndox mi sell na dégg nga tey tamit ah soo buggee dégg soo jëndee ñu indil la ko livré la ko fa nga waaw kon noo ngi ñaan ak yeneen ak yeneen yoo xam ni incha allah dañ ñëw ku bëgg kër yi tamit muy terrain wala yooyu soo dikkee fii dégg nga boo gisee paap dégg nga di nga am kër dégg nga te loolu la bëgg dimbalee jaam ñi dégg nga kon ak restauration bi ak yeneen ak yeneen kon noo ngi ñaan ci barke Cheikh Khadim yàlla na fi yàlla dolli jàmm yàlla na yàlla dolli wér gi ak kàttan gi di nuyu sama mbokki taal bi yëpp nag rawatina dégg maam ah waa Bambey ñoo leen di nuyu bu baax a baax ndax. safar gi nga xam ne ñëwoon nañ fa ñoom soxna Kumba yët baaboog dégg nga ñoom seex euh, Tourade ak daayira Taysir Asir dégg nga ñoom Pape Bounaak xale yi ñoom ñëpp ah xees wax dëgg yàlla bàyyi wunu dégg nga ñoom bekkaay xale yi jàmbaar lañu dégg nga di leen ñaanal ak ñoom jiddu baabook ñoom ñëpp dégg nga di wax ne euh, Mouhamadine yàlla na yàlla guddal seen fan seen taxawaay rafet na dégg maam ah, ñoom Fatou madame ñoom dégg maam euh, Tutu Fall ñoom ñëpp ak Halima ak minettu dégg nga njaboot gi ñoom tislim bàyyiwunu kenn ñoo ngi sant dégg nga ak may may loolu mi nga xam ne mooy jëwriñ dégg nga maam Serigne Souhaïbou bi foofa dégg nga maam ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di sant tamit dégg maam ah waa Caaroy Géej dégg nga conférence bi mu leen doon defal muy safar gi démb dégg nga Pape dégg nga ak Aziz mi nga xam ne dégg maam en ah Cissé ñoom ñëpp ak soxnaam dégg nga soxna Khady Ndiaye dégg nga ak mbooleem soxna yi ñoom ñëpp ñu àndoon dégg nga ci liggéey bi ñu àndoon ko Modou Fall dégg nga àndoon ko ak Ousseynou Ousmane ah Ousmane Dia dégg nga di ñaanal itamit dégg nga Ousmane Sall di sunu baay bu baax. dëkk Pikine nga xam ne moom tamit dégg maam taalibe Sëñ Tuubaa la waa waa Daaru Minam la noo koy ñaanal yal na yàlla gudd fanam di leen wax ne dégg maam ah ñoo ngi ñaan yal na nu yàlla may di daje dégg maam ah bu nu bu ñu màggalee ba pare incha allah waaye fii jëm nii lépp lu ñuy defati dégg ma màggal ga soobee yàlla lañ koy defee ak yéen ñoo ngi sant di ñaan yàlla na yàlla dool jàmm yàlla yàlla yokk wér gi yàlla na yàlla yokk kàttan gi ci barke Cheikhul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.